الله الرحمن الرحيم فإن الدين رسول الله فيه لنا حل المشاكل دنياها وأخراها mbokki jullit yi Al Hidayatu di émission bu leen seen rajo Safina FM 98.2 di dégtal aljuma bu ne bu 10 heures jotee jàpp midi ak seen soppewu sa Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw Al Hidayatu di émission bu lay gindi xamal la fooy jaar ba tabax sa personnalité muy sukkandiku ci alquranul karim waxu Mawlana xaaliqul jalil ak waxu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa tuqaanil hawa Al Hidayatu aljuma bu bu bu 10 h jotee japp midi ci sen radio Safina FM 98.2 point 2 wasalaamu